Salut chers abonnés, content de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui, nous vous apportons une vidéo très importante concernant le nom de Dieu, Yafataho. Yafataho est un nom qui renferme beaucoup de secrets. Si vous voulez de l'ouverture, si vous avez beaucoup de blocages dans votre vie, si vous voulez avoir la richesse, Yafataho est le nom qu'il vous faut. Donc, pour ça faire, c'est très simple. Vous allez, après chaque prière de Fajr, vous allez faire Ya Fatah Ya Fatah 489 fois après Fajr et 489 fois après Isha. Et Inch'Allah, vous allez voir beaucoup de changements dans votre vie. Merci d'aimer la vidéo. Donc, pour, le, pour, le, pour nos bagues aussi, je voulais vous en parler. <coughs> donc pour mon bague إنني وسط بالإله المعين من جميع الأذى وكل العين yéen ñi itteewoo ñaan yi wér te wóor te dëppook sunna sayduna muhammad salallahu alayhi wa sallam lépp loo itteewoo ku la ci ñaanal am nañu ay chaîne am nañu itam ay jaaro yu mucc ay bayre njaay ba ci bayre tubaab am na itam ay nopp wàllu jubóole maanaam sa diggante ak nit ki ñu neexal ko moo xam muy jëkkër ak jabar wala ndaw sooy bëgg nga bëggit sa diggante bërëb bi ngay liggéeyee neex lool rawatina ak sa patron moo ma ci doy yow mi ittewoo garabu kër gi maanaam garabu kartan ci sa wàllu sëy nga nekk nag ba bitim réew jafe-jafe boo mën di am sëriñ mohammed rek moo ma ci doy moo ngi nekk Touba Madiana 1 foo mën di nekk ci biir àdduna bi su ngeen déggantee ci lii sa itte dana def la tout maanaam fexe ba la mu la war a jox ak lu mu ci mën di doon dana ko teg ci loxo yu mucc ayib ba mu agsi ba ci sa jëmm ci anam ba nga ko soxlaa ngeen mën ko woo nag ci 77 335 14 14 77 335 14 14 ba tey mën nga def 77 259 45 06 77 259 45 06 yow mi bëgg aar sa kër ba ci sa bërëbu liggéeyukaay rawatina ki néegu am ay jafe-jafe nga jortu ni dañu la liggéey mbaa nga umu nga bëgg a ci sa jëm yow mi sa loxo bënn loo yor du taxaw kenn boolewula ci dara itam ak sëriñ Mouhamed daal boo jokkoo ak moom sa njàqare dina dañ ba jeex tànn te ci kàttanu yàlla ak baax foo mën di nekk ak fu mu mën di doon da ngay bokk ci sëriñ moo ngi nekkee lil kitab al afif fi kulli taa bi mooy quatre cent alif gi mooy un xaa xaa bi mooy huit soo ko boolee def lay jox quatre cent quatre-vingt-neuf ngay def saa yoo jullee foo jullee fajar ba pare nga wirdu ko quatre cent quatre-vingt-neuf fois di limu turam naka noonu itam saa yoo jullee ge ba pare nga wirdu yaa fattaahu yaa fattaahu limu quatre cent quatre-vingt-neuf fois dana tax sun borom tabaraka wa taala ubil say buntu xewal bo nekkoon nit ku tëju ko xamantene say mbir dafay dëgër looy lijjante du antu yàlla mën na laa defal ubbeeku gu yeme loolu incha allahu taala li moo nekkoon vidéo bés bi ñu leen di sant di leen gërëm di leen jox dig daje asalaamaaleykum wa rahmatullah إنني وسط في الإله المعين من جميع الأسى وكل العين yéen ñi woo ñaan yi wérte wóor te dëppoog sunna sayduna muhammad salallahu alayhi wa sallam lépp loo ité woo ku la ci ñaanal am nañu ay chaine am nañu itam ay jaaro yu mucc ay bayre njaay ba ci bayre tubaab am na itam ay nopp wàllu juboole maanaam sa diggante ak nit ki ñu neexal ko moo xam muy jëkkër ak jabar wala ndaw sooy bëgg nga bëggit sa diggante bërëb bi ngay liggéeyee neex lool rawatina ak sa patron moo ma ci doy yow mi ité woo garabu kër gi maanaam garabu kartan ci sa wàllu sëy nga nekk nag ba bitim réew jafe-jafe boo mën di am sëriñ Muhammad moo ma ci doy moo ngi nekkee Touba Madiana 1 foo mën di nekk ci biir àdduna bi su ngeen déggantee ci lii sa itte dana def le tout maanaam fexe ba la mu la war a jox ak lu mu ci mën di doon dana ko teg ci loxo yu mucc ay ba mu agsi ba ci sa jëmm ci anam ba nga ko soxlaa ngeen mën ko woo nag ci 77 335 14 14 77 335 14 14 ba tey mën nga def 77 259 45 06 77 259 45 06 yow mi bëgg aar sa kër ba ci sa bërëbu liggéeyukaay rawatina ki néegu sëyam am ay jafe-jafe nga jortu ni dañu la liggéey mbaa nga umu nga bëgg a bayre ci sa jëmm yow mi sa loxo bënn loo yor du taxaw kenn boolewu la ci dara itam ak Serigne Mohamed daal boo jokkoo ak moom sa njàqare dina deñ ba jeex tàkk te ci kartanu yàlla ak mbaaxam foo man di nekk ak fu mu mën di doon da bokk ci barkeb Seydouna Mohamed moo ngi nekkee Touba Madiana 1 بالعفيف في كل حين